abonnez abonnewul sur sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am c'est xibaar. dal leen FT TV FTTV Sénégal def jàngat jëmale ko ci li kii di Youssou Ndour daal xaar ba 5 mois daal di des ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm ci Sénégal mu daal di jébbal démission kii di président Macky Sall mi nga xam ne ne nañ 12 ans ci bopp réew mi te mosu li ni mel ci ñaari poñ lañ ko war a jàngatee bu ci jiitu mooy que ne mbir moomee ab non événement la mbir la bi nga xam ne ne kenn waru cee àddu ndax amulul benn solo réew mii di Sénégal lu tax ñu wax li ni mel mooy que ne kii di Youssou Ndour bu nekkee dëgg rek moo tax ñëpp di wax mooy que ne amul benn compétence ngir nekk ministre ci réew mu normal kii di Youssou Ndour jàngul lu ko war a mën a may mu nekk ministre de la culture wala ministre conseiller ci réew mii di Sénégal bu fekkoon ne dañuy amoon politique l'homme qu'il faut à la place qu'il ci réew mii di Sénégal kii di Youssou Ndour kon du fi nekk ministre loolay dëgg waaye nag mun nañ koo naw bu baax ci aar bu muy def ndax foofee mokkal na ko te moom fay def lu woo xam ne ne ku nekk mën na ko see nawloo waaye lu jëm ci post ministre kii di Youssou Ndour bu dëgg neexee yàlla rek waru koo doon ci réew mii di Sénégal beneen jàngat biñ ci amal mooy que ne kii di Youssou Ndour vrai homme d'affaires système bi la lu tax ñu wax leen ni mel mooy que ne kii di Youssou Ndour ba fi kii di Abdou Diouf nekkee àndoon na ak Abdou Diouf na ko taggoon na ko nekkoon na xaritam ba kii di Abdoulaye Wade nekkee woon ci bopp réew mi àndoon na ak Abdoulaye Wade taggoon na ko woyoon na ko nekkoon na xaritam kii di Youssou tamit ànd naa ak kii di président Macky Sall wéyaloon na ko taggoon na ko nekk na xaritam jëfam joojee nag lu muy tekki mooy que ne kii di Youssou Ndour vrai homme d'affaires système bi la ndax xam na ne pour nga nekk ab homme d'affaires mën a ànd ak système bi faaw nga nekk xaritu président yi fi jaar bu ko defee ngay mën a gérer sa business te ñooñee duñ la ko yàqal lu mu nekk homme d'affaires système bi moo tax ba mu bëggee dugg ci politique li ni mel moo taxoon mu daal di opposé woo que kii di président Abdoulaye Wade ginnaaw ba mu xamee que ne kii di Abdoulaye Wade bu forcé troisième mandat kookee du fi nekkaat président li mel moo tax kii di Youssou Ndour daal di fi formé ab mouvement daal di koy tuddee fekkee ma ci boole ngir jéem a contrer kii di président Abdoulaye Wade ba kii di Abdoulaye Wade di jeexal nguur gi li mel tamit moom moo tax mu daal di bokk ci gouvernement. kii di président Macky Sall dal di fi nekk ay ministre donc kii di Youssou Ndour bu xaalee ba cinq mois élection war a am ci réew mi di Sénégal mu daal di jël ab lettre de démission daal di koy jébbal kii di président Macky Sall loolee lu ko sabab du lenn lu du wane waat bu baax que ne moom moo homme d'affaires système bi la ndax bu nekkee bàyyi na kii di président Macky Sall